que baa euh, le discours du président Sall ndax da nga jàpp ne dafa évoluer dafa varier dernier euh, mois de de sa présidence bi ce qu'il a déjà dit au cadre de Casamance lan nga ci xalaat. mais en fait euh, je pense que y' a a a a une erreur quand même si par rapport ak euh, propos yi nga xam ne tenir nañu ko quand je dis y' a une erreur. Mm -hmm. les situations quand on est un président de la République comme ni ko Fabio waxee oui. il est garant de notre nation oui mhm. il est garant de notre sécurité de notre salubrité et tout et tout et tout mais il s'adresse à des Sénégalais et que les Sénégalais aussi en réalité euh, dafa xam lu ñu tuddee vertu wala valeur mhm. dañuy wax ni en réalité kilifa doo ko doo doo ko yedd si mbooloo soo ko mhm. yeddee si mbooloo xas nga mais en réalité en quelqu'un qui utilise le terme escroc en réalité tout monde qui connaît lan mooy escroquerie euh, par rapport à ça c'est des personnes jeunesse malsaine jeunesse malsaine soo waxee ay nit escroc. Mhm. en réalité dans le fond dafa am leen loo leen dencoon mhm. comportement de ces casacés lépp lu ñu mënti wax mais je pense que le linge sale se en famille mënoon na leen convoquer en tant que des responsables mënoon nañu tëju ak ñoom wax leen am na yenn yoo xam ne bëgguma ngeen posé ma fa am na loolu nga xam ne y a des voies et des moyens yoo xam ne mën ngeen ma si saisir mhm. wante façon bii ngeen koy defee ngeen national et au niveau international et tu traites des responsables d'escrocs moi je pense que ces responsables avec le timing bi nga gouverner yëpp ils vous ont servi à moment donné mhm. amal nañu njëriñ à moment donné servi nañu la directorat defal nañu la ci mbedd demal nañu la ci terrain am na nu ñu waxee donc moi je pense que gis nga kilifa en réalité toujours dañ koy natt ci Ils n'ont mais loolu appréciation la mais je pense que qu'importe travaille avec lui ou na mun a que mhm. dañ koy nattee si façon kàddu gi ngay yëkkati di ko mhm. wax te kilifa dañuy wax ni en réalité il faut nga am la capacité de réception muñ la naqari mhm. toogaale ko pour wane ni yaay kilifa yi wane woo ñàkk fayda waaye dina am leen loo xam ne di ko jàngale mhm. mais bu fekkee ni yow en réalité da am cette capacité que ñu la dóoree nga riposter si saa si à un moment donné après yow pour ñu wax loola dafay facile mais nag man ni gis nit ñi gisee dernièrement le président Macky Sall ni muy waxee ak dafa tàng man je dis que nit ñi wax dernièrement mais le a toujours ce comportement. il n'a pas comme nag dafa nekk loo xam ni waa góor la mais sa façon de parler dangay jàpp ni mais on dirait que il n'est jamais content. Mm-hmm. on dirait Sall dafa am lu ko naqari malgré lu ko yàlla may lépp. Mm-hmm. pourquoi parce que n'oubliez pas que toog nañ fii. muy adressé aussi opposition façon waxin boo xam ne toujours noonu la ma samel depuis bi mu toogee ba léegi bi mu njëkkee wax dina ko réduire à leur plus simple expression si la ne il est il il est en train de piétiner même la constitution bi jox opposition statut mhm. on ne piétine pas vous êtes en train de piétiner la constitution mhm. parce que waroo réduire l'opposition à sa plus simple expression da ko mën a war a may cette capacité de s'exprimer cette capacité de vous contredire et de faire des propositions nga war ko déglu sax intelligemment soo nee da war a def lii da nga a def lii li nii baaxul man su ma ko saytoo ba xam parce que une bonne idée mën na jóge ci opposition. Mhm. mën na jóge ci société civile mën na jóge ci keneen ak keneen. mais bu fekkee da ko xoolee adversaire à éliminer toujours da ngay jàpp ni le processus boo xam ne kii dootu fi waxee dootu fi exister dootu fi tekki dara et pourtant da nga ko war a préparer la voie. Mhm. ba nga xam ne moom bu ñëwee mën a continuer parce que à la kulli àllin un jour dina la mën a remplacer. et puisque Sénégal daf waroo koo def de telle ñëwee dara du baax donc moi je pense tey soo xoolee discours bi nga xam ne amoon na ko ci nit ñi di wax dinañ ñàkkoog duñ ñàkku mu génn <laughs> wax ay waxam bu ngeen fi ñàkku wut de toute façon ma maye ko mhm. loolu pour man manque de respect la envers des sénégalais soo toogaatee encore nga toogoon ba benn moment nit ñi di wax waxu péage waxu tali bu yàqu bi mu ne ku amul loo jëlee péage bi nga jaar ci suuf te si suuf ñëpp xam pax yu mu am manque de respect envers les sénégalais. xëy na pourtant day kaf mais peut-être kaf ah. uh-huh. mais kon na gën a kafee di reetaan. voilà boole ci reetaan en fait mais quand c'est un discours officiel. Uh-huh. quand c'est quelqu'un qui parle par rapport à l'institution et non de parti wala nit suy wax discours boobu dafay solennel parce que la la le vaccin si ay Covid. ay l'utilisation de l'autoroute à péage duñu uh-huh. ko kafee. tey kon boo xoolee comportement président Macky Sall ba léegi. ba aujourd'hui tey ñu jàpp ni dafa exacerbé aujourd'hui lenn rek moo koy waral xam lan moo ko waral dafa am ay jamono yoo xam ne lépp lu mu wax lu ko naqaree lu ko neex mun na ko rattraper mais aujourd'hui lu ko naqaree mënatu ko rattraper. Hmm, mooy lan et le président en en réalité il est déçu de ses collaborateurs. Hmm. il est très déçu sax te yàgg na ko wax. yàgg na wax comment il peut avoir une cellule de communication on ne pas à montrer li mu def. ce qu'il fait il le dit toujours. loolu na ko a toujours yàgg na ko wax c'est vrai. comment je peux vous doter de moyens colossaux loolu yàgg na ko wax. et que tey aujourd'hui on a l'impression que on est. on ne parle pas de ça ko def. mais loolu noonu tey métti na ko métti boo hmm, xam ne. ça c'est nit ñi ne je me suis dit ñii nan laa leen mën a yóbbu fii et je suis e il le montre carrément kontaan pourquoi parce que il lui reste trois mois trois mois mënatu fi def dara. mais boo seetloo aussi professeur euh, depuis bi muy wax sénégalais yi que du bokkaat en deux mille vingt quatre discours dafa xaw a gën a dëgër jëm ci opposition bi maanaam il se dit que ne maintenant amatul opposition en face mais il a des terroristes entre guillemets yoo xam ne. il faut les oui, neutraliser mais en face il n'a pas de terroristes xam nga le mot Ah, mais xam nga xam nga attaqué nañ ko nee nañ cocktail molotov bis boobu noonu mais tey foo demee fi ñuy waxee terrorisme dëgg dëgg dëgg c'est carrément différent en réalité ñuy attaqué bàyyi ba match am des milliers de personnes mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy xool université ñi nga xaw ñu arrosé ay nit ay am ñun yegguñu foofu yegg foofu maintenant y a des actes à condamner de fàtt fu mm-hmm. munti jógee y a des actes qui sont des infractions criminelles képp ku ñu ci jàpp foo munti bokk dañ la war a traiter comme un criminel la loi abattre sa kaw. Mhm. man loolu laa gëm bu doon man mii nañ ko appliquer bu doon keneen nañ ko appliquer on ne cherche pas à voir ki bokk ci opposition ki bokk ci opposition nos lois sont très claires le code pénal le code de procédure pénale tous les codes toutes les infractions dafa am lu koy réprimer. soo defee un acte bu ñu incriminé dañ la war a jàpp bu ñu la war a réprimer ñu réprimer la. Mhm. donc loolu nag c' est des violences politiques exacerbées mais dem ba tuddee ko ay terrorisme ça fait peur parce que un terroriste ce n' est rien d' autre que quelqu' un qui fait peur. Mhm. si le président Macky fait peur on peut le caractériser de terroriste. si moi je fais peur c' est je peux on caractériser de terroriste. Mhm. maintenant les actes. peuvent avoir une certaine gravité ba mu nekk des actes criminels dans le sens de nuire toute une société te ñaan ñu ko yàlla donc moi je pense que aujourd'hui le président Macky dafa waroon amee la paix de dafa waroon am un discours d'apaisement dafa waroon am quelqu'un koo xam ne tey dafa war sax triste ci tàggatoo bi muy waaj hmm. pour def ay sénégalais mais discours de va guerre bi di wax ni du teetaan dara di ko fi am moom fàttali defoon na ko fi ko hmm, hmm, fi mais après am na lu xew te la xew loolu nag moi je pense que gouvernement bi ak ñu ànd ak président Macky Sall yëpp dañu fayit si benn affaire boo xam ne moom lañu ko def xam nga moom aw lañ leen doon xaar mhm. ñun en tout cas au niveau du grand parti au niveau de l'opposition au niveau des sénégalais dañu doon xaar non mille milliards de covid que rapport bi fu mu toll mhm. ñi ko jël fan lañ toll pourquoi ñoom ñoon ba léegi interpellé wuñ leen dañ doon xaar ñi attaqué université mhm. qu'importe boor bu ci nekk enquête bi fu mu mujj parce que c'est une institution c'est l'UCAD c'est le creuset du savoir ba aujourd'hui tey ñi ngi jàngut ñu étudiants yi ñi ngi dem ay livraison ñi dem ay Nicaragua ñi si gaal gi ñi prison étudiant amatut fii parce que en réalité dans le fond soo jàngatul mënu am le qualificatif de étudiant mhm. ñun ñi ngi bëgg a jàngale SAES def sitting autorités yi war dañ bëgg a jàng ubbi wuñ université mais lamb bi ubbi na ëbbuñu université mais match foot ñi ngi am ëbbuñu université mais def nañ défilé de mode biir Fasek mm. ce que je tiens à mm. aussi donc qu'est-ce qui se passe bañ bañ étudiants yi ñëw jàng fekkoon ñi jàngale sax ñoo jàngul parce que dañuy ragal ñoom ñu ñëw université donc tout ça fi ñu doon xaaree le président Macky mooy ñu def ne les rapports ñu ñu épinglé ñu indi leen université ñu tijji ko ñu leeral li nga xam ne carrément tey moo nekk tous les rapports yu OFNAC def et les cours de fu ñu toll foofu mooy une bonne gestion une gestion transparente mais boo toogee di gëddee di nappe di xupp une chose tamit dañ koy <laughs>